وبارك الاسلام وتعاليمه وعقائده واخلاقه واساليب الحياه فيه والعمل والمعامله يجب ان نعود اليها mbokk julit yi principe l'islam dañ cee war a dellu njàngaleem l'islam dañ cee war a dellu pas-pas yi nga xam ne moom la islam bëgg ku ko fas dañ cee war a dellu ca na mu ko bëgge waxin ak jëfin yi nga xam ne moom la alquran bëgg dañ cee war a dellu tënku ca te alquran jiit ñu di ko dégg na ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam firee woon ci sunnaam loolu kat lu mun ta ñàkk la daf noo war ñëpp dama war man miy wax war la yow dëgg dégg kàddu gi war jigéen gi ci kër gi jeeg bi ci kër gi di togg ko yekk loolu da ko war boroom këram loolu da ko war gone gu góor gi da ko war gone gu jigéen gi da ko war képp koy sénégalais di ab jullit li war na la da leen ci yàlla dimbali man daal lii laay woo sama bopp di leen ci woo ñun ñëpp war noo xam ne sa boroom yàlla moo nu sàkk loolu xam nañ ko waaye ñun ñëpp war nanoo bàyyi xel ne yàlla bi mu nuy sàkk xanaa am na lu tax kenn ku nekk ci ñun la mu am ci ay jumtuwaay ci këram moo xam ay fas la moo xam ab oto la lépp loo am kër am na loo koy dee du dëgg yàlla itam bi mu nu sàkkee am na lu tax mu sàkk nu yàlla sàkk nu moo indi ci Sénégal indi ci Sénégal gi pour ku mu neex aw fu la neex ñee dem dooni tubaab dem ci tubaab di jàng ci ñoom ni ñu doxalem réew ñee doon doomi salafit dem ci naaree di fa jànge ni ñu doxalem réew ñee dem ci suufi ye ñee dooni tiijaan ñee dooni murit ñee dooni xaadir kenn ku nekk tas aw fu la neex di doxale na mu la neexe yàlla moom du wax kenn dara mbir mi demewul noonu kenn ku nekk di wut loo dunde boo amee alal takk jabar wut kër دادي تامل دوغا سي ادنا دو باي خيل يالا ولا لا نكاي باي خيل نيو لول لولو تاخوت يالا ساكلو كمان امنا ايه القران بو خامني سمو كاي ايماجينا دما نان وا سنغال موكو تاخا واتش نوكو تاخا واتش نخ لي ني ديف دا نوك لي ايه جي دي واخ سامبني يالا دافا افا حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يالا نينا مو نخ دي نينا ياكار dama leen doon sàkk pour neen wala pour fo ndax danoo yaakaar ne yàlla danoo sàkk rek pour fo yàlla danoo sàkk rek bàyyi comme neex nga def lu la neex comme neex nga doon ku la neex aw fu la neex doxala nu mu la neexe wéy ci sa xalaati bopp yàlla moom bàyyi noonu rek déedéet ay boobu suñ borom loolu la ci wax kon boog dala war a xam ne yàlla bi mu nuy sàkk dafa amoon lu tax mu sàkk nu te loolu wax na ko ci beneen aaya وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون يلا يعني أنا دارا تقول مساك الجن يك نتني لدول نجير بغ نجامو ما يلا يعني أنا بموني ساك لا بغون نجامو كو جامو كو نك بجا جنوك يو ياسيت ننكو بغا جامو بجا جنوك دفع أمي خيط جامو يلا يباري عباد الرحمن نينا يوار جامو falaax yi nii la ñu war a ko defee murid nii la ñu war a def tijaan nii la ñu war a def xaadir yi déet yàlla kenn la lenn ndaw la yónni ci nun mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn téere la wàcce ci nun mooy alquran fenn la ne jaarloo mooy assiraatul mustaqim assiraatul mustaqim du mooy xalaati Abdou Aziz Touré du mooy xalaati Abdou Aziz Ndiaye Mba Diop assiraatul mustaqim mooy li yàlla rëdd ci alquran sayyidina muhammad leeral ko ci sunnaam sallallahu alayhi wa sallam ne jaar leen fii foofee fa la ñu war a jaar mooy ak jaamu yàlla jébbal yàlla suñu lépp di julli tey julli na yàlla bëgg ni jullee te mooy na yonent bi jàngale la alayhi wa sallam di woore noonu mbir bu nekk lañ cay gëm ak lañ cay weddi ñu teg ko ci li yàlla bëgg ko gëm ak lam bañ ko ko gëm mbir mu nekk suñuy jikko ñu peese ko ci bañ koy peese ci intérêt wala ku ñu ko dubin mu rëkkanlu ko wala sàcc ak tappaleeg fen waaye suñuy jikko ñu maas ñu ñu peese ko ci alquran ak sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ dund gi lépp ñu jox ko yàlla lépp lu ñuy def ñu xam fu yàlla bëgg nu jaarale ko fa nu jaarale ko fa noona loolu mooy ibada mooy jaamu yàlla bu kenn yaakaar ne jaamu yàlla mooy bu tisbaar jotee mbaa timis nga këpp këppal jullee nu mu la neexe julli koo xam ne gi yow li ngay tari fatiha xamoo lu mu tekki inna anzalnaa li nga ciy teg xamoo lu mu tekki sëgg ka siggi amul benn sens subhaana rabbil ala ji nga xam ne jublu woo ci dara loolu jaamu yàlla tàmbalewul foofu yem fi wow jaamu yunu yàlla ñàkk na solo lool jaamu yàlla mooy nga fab sa bopp lépp jox ko yàlla comme ni ko Laxdari yu waxe Laxdari yu nee na du dagan ci mukallaf muy def jënn jëf ndar du daa jëkk xam lan la ko ci yàlla sant bu ko def loo mu def ko bu ko teree mu bàyyi jébbalu ci yàlla jébbalu gu mel noonu yi nu yàlla sant nu di ko def li mu tere nu di ko ba loolu na bi mu nuy daf noo sàkkoon ngir lu jaamu ko kon nag kenn ku nekk ci ñun bu jógee ci jotaay bii na seetaat boppam lépp lu muy bëgg a def day bay day sàmm ab commerçant la ab fonctionnaire la ab journaliste la bu nekk ci rajo wala télévision ab jàngalekat la borom usine la lépp loo nekk di ko def boo demee nga nga dendale ko ak alquran dendale ko ak waxi sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam ak ak santaaneem lu ci dëppoowul nga wëlbati ko ba mu dëppoo ak moom loolu bu ñu koy fay jàmm am moo tax yàlla sàkk na yonent yàlla dimbali ayyuha almuslimun hmm. mbokki jullit yi am na nag ab maslak wala ab tarxiisukaay boo xam ne xam naa na ñu bari ci ñun tarxiis nant tarxiisukaay boobu nag moom laa bëgg ñu déglu ko bu baax a baax a baax ndax ñu jubbanti tarxiis boo xam ne boo daanoo ci naaw jahannam ngay ngay daanu yàlla nañ ci yàlla musal waaye am na tarxiisukaay boo xam na ñu bari ci waa Sénégal tarxiis nañ ci te war nañ koo seetaat boobu mooy ban mooy ñi nu gëmee ñu nu gëmee yomal qiyaam musiba munu dal mi ngi ñu bàyyi koo ci gëminu yomal qiyaam bu jaarul yoon mu ngoog ñu nu gëmee yomal qiyaam gëm gi dafa jaarul yoon moo nu andil musiba. gëm yowmal qiyam gëm yowmal qiyam ab fonk la bu bokk ci fonki gëm yàlla jibril alayhi salaam dafa ñëw ci sayidina muhammad alayhi salatu wasalaam di ko laaj ay laaj laaj na ko ci biir laaj yi ne ko wax ma luy liimaan luy gëm yonent yàlla muhammad ne ko sallallahu alayhi wa sallam al imaanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axir وتؤمن بالqadari xayrihi wa sharri yonent Yàlla Muhammad daf ko ne gëm mooy nga gëm yàlla gëm yàlla gëm sam malaakaam yi gëm téere yi wàcc bàyyi ko kaw asamaan mu nga gëm yàlla gëm malaakaam yi gëm téere yi wàcc bàyyi ko kaw asamaan gëm yawmal qiyaama mu nga gëm yonent yi yonent yàlla yonent yi yàlla yónni nga gëm leen gëm yawmal qiyaama gëm yowmal qiyam gëm tam ab dogal juróom mi benn ponk yooyu la ko limal gëm yàlla mooy bu njëkk bi gëm ay malaakaam mooy bu ñaareel bi gëm téere yi wàcc bàyyi ko kaw asamaan mooy bu ñetteel bi gëm ndaw yi mu yónni mu yonent yi mooy bu ñeenteel bi bu juróomeel bi mooy gëm yowmal qiyam juróom benneel bi nag mooy gëm ab dogal la ca neex ak la ca naqari kon boo gëm yowmal qiyam boobu man moom laa soxla tey bëgg koo leeral gëm win winu gëm yowmal qiyaam moo nu sànq te moo ñu dugal ci ay musiba yu bare bari aha ndaxte mboolem fonki gëm yooyu benn bu ci ne yonent bi da koo tënk alayhi salaatu wasalaam waaye dafa am détail aha détail yu nañuy gëme yowmal qiyam nag alquran détaillé na ko ba mu leer yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam détaillé ko ci ay waxam ba mu leer aha يوم القيامة كم نلقى القرآن جنجلة ما يوم الدين بعدين تجاه فاتحة بعدين جنج ملك يوم الدين يوم الدين ما يبصق بيبي بما أنا ما يبصق من خم نكنا كنا يلا الدين لا فايل نجف آه قال تعالى في سورة الغافل آية 17 اليوم تجزى كل نفس يلا نانا بو الآخرة بما تجل نيت نيت لما يروحنا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت تجي laay fay nit ku ne la mu def tey jii laay fay nit ku ne la mu def tey kenn du tooñ kenn kon boog àllaaxira wala yawmul qiyaama mooy bis bi ñuy fay nit ñi seen i jëf loolu la ñu alquran jàngal aha الإيمان بهذا اليوم وبالمواصفات التي وصفه بها الله تعالى في كتابه العزيز يجعل المسلم دائما الخوف منه يكثر من محاسبته mbokki jullit yi ab jullit bu gëmee yawmul qiyaama خو خو يي خو يوم القيامة مدك له القرآن القرآن وخلقك مدك له ينت يالا محمد عليه الصلاة والسلام ينت بي وخلقك بمقام يوم القيامة جم خو خو في خو تنمو في خوي تنكو القرآن نتلي كيف كو خمنا لولو عندك فو نغرقل فو نغرقل بس بو بديكو باي خل تلف لوي وخ اك جف فو نغرقل باي خل بس بو آه. لأن الله سيحاسبه عليها في هذا اليوم لف لوي lépp looy jëf yàlla dina la ko régler ëllëg ci bis boobu ñuy wax yawmul qiyaam ah lépp li ngay wax ak lépp li ngay def bu àllaaxira yàlla day indi ab balance xam ngeen balance yéen ñëpp peese wu boo xam ne dafa neex lool ba boo fa benn peppu pundi teg sax mu yëg ko balance bu mel noonu la yàlla di indi kenn ku nekk ci nun li mu jëf lépp ak li mu wax lépp yàlla peese ko ah comme ni ko suñu borom yàlla nettalee ci suuratul Aaraaf nee na wal waznu yawma idin il xaq yàlla nee na bu àllaaxira peese mooy dëgg àllaaxira damay peese jëfi jaam ñi ak seeni wax koo xam ne kii peese na sa balaa si jëfi yiw ñoo ñooñee rekk ñooy mucc koo xam ne kii peese na sa balaa jëfi yiw woyof nga dem naari jahannam yàlla lii la wax suuratul Aaraaf aha ولما ما بنيوخ بني وخ القارعة صابرم نينا فأما من ثقلت موازينه كو خمنا كي سبلاس جفيو دفا ديس دفا ديس فهو في عيشة راضية بغير نك تي الجنة جو خمنا لنغا في دون دون بنيخ وأما من خفت موازينه كو خمنا كي نك سبلاس جفيو دفا ويف فأمه هاوية كرم وينار جهنم وما أدراك ما هي تخمو نار جهنم ولا نار حامية أو سفر لو تاني جر يلنا يلا مسوي سفرة ثم بلن يلا تفنو خملني بو الآخرة أمو الأبداز استرى أمو الأبداز نجاي باجوك أمو البروم علل أمو البروم درجة أمو البروم بولو أمو الأبسرين أمو الأبيونان داي بيسه داي بيسه سي جف لكي جف يو تجف يو كت يلا مونان لي أجليك لي مو يو léegi léegi lii moo baax ba jëf ju baax ak ju bon yàlla bàyyil ko nit ñi muy am relativité lii baax ci Abdou Aziz Touré bon ci Abdou Aziz Ndiaye bu ko defee kenn ku nañ ñu peese la rek xasaba la baax fa yow déet yàlla daf ne lii ak lii ak lii moo baax lii ak lii ak lii moo bon ci ay wax ak i jëf boo laaxiraa nag jëf yu baax yi nga jëfoon ak wax yu baax yi moom la ñuy peese yàlla nee na bu diisee nga dem aljanna bu woyefee nga dem daari jahannam mu ngoog yàlla na ci yàlla musal ah moo taxit jullit ñi ñoom bu njëkk ba dañ daan ragal yowmal qiyam bu baax di ko bàyyi xel ci lépp al yowmal qiyam des koo war a ragal ñun nag ragaluñu ko lu tax alquran ci boppam daf nuy soññi nan ragal yowmal qiyam nan ko bàyyi xel alquran nee na nanu jàppe adduna si muy marxala muy étape bu gàtt ci dund gu gàtt a goo xam ne dara xaju fi lu dul waajal yowm alqiyama lu dul def lu la mën a yóbbu àjjana yowm alqiyama waaye doo fi nekk mukk di ittewoo addunay kese adduna boo fi amee loo dunde ak loo sol ak foo dëkk loolu mooy li ci munta ñàkk waaye lii fi tax ñëw dëgg-dëgg mooy nga liggéey fi bu àllaaxira luy tax nga am balaa fi yiw diis nga maa dem aljanna alquran daa bëggoon nu jàppe noonu adduna alquran lu mu wax alquran nee na misaalum adduna dunduk adduna ji daal du dara lu may fo adduna am ko rek la yow mi nga xam ne dangay xëy di commerce da bay dangay sàmm da bëgg ay million da ngaa bëgg ay milliards cim po nga nekk cim po nga nekk adduna lépp am po la loo dajale lu mu bari bari bari bari bis dina ñëw nga bàyyi ko fa wujji sa borom am na benn bis benn mbokk ne ma damaa bëgg nga ñaanal ma ma am ay milliards ma ne ko ah ay milliards day boo ko amee bis dina ñëw malakul mawti ñëw jël sa ruu su boobaa day sa mbokk yi la gën a jege milliards yooyu dañ koy jël de duñ la ci bàyyee dara mbub mi nga sol dama koo jëlale jëlale montar bi nga takk waaye sa jaarok loxo bi sax duñ ko bàyyi dañ koy dañ koy jël say jabar ñu takk ko say néeg ñu dëkke ko yow ñu génne la def la ci ña juróom-ñaari mètre percale gas ba lu xóot ñu suul la te doo fa yóbbaale nag milliards yooyee xam nga loo fay yóbbaale yi nga doon def ci ay jëf yu yiw wala ay jëf yu baaxul mu nga àdduna am po rek la àllaaxira nag mooy kërug dëgg gi loolu la alquran wax aha fa inna allah jalla jalaluhu mala anbiyaahu bi qawlihi suñu borom yàlla ci alquran mi mu nuy wax ay yonent yu mu tagg lam leen tagge mooy lan mooy inna axlasnaahum bi xaalisatin dikra daar nee na man yàlla maa leen jagleel ñoom yonent yooyee lu am solo te mooy ñoom amuñu soxla ci àdduna wutuñu dara dara dara lu dul lu jëm ci àllaaxira mu ngoog aha nun nag safaan bi lan def yonent yooyu yàlla di tagg te bëgg nu toppandoo leen yonent yooyu saa borom yàlla nee na ñoom li mu leen tagge mooy ñoom seen itte lépp àllaaxira la adduna si defuñu fi dara lu may wut ci lu ñu defaree àllaaxira nun nag safaan bi moonu dal nun suñu addun suñu yëpp addunaa ko tax a jóg ñoom yonent yooyu ci soxlawuñ ci dara defuñu fi lu dul wut lu ñu jëmee àllaaxira aljanna nun nag adduna rek la bëgg ñoom àllaaxira dong la ñuy wut ñun nag àdduna dong la ñuy wut aha waaye nag loolu lu ko waral lan moo tax àllaaxira diis ñu jëkk ñi daa ko ragal nun nu ñeme ko lan moo tax adduna nun mu diis fu nun gann àllaaxira woyof fu nun toy ba tax nu dëkk ci loo xam ne kenn ku nekk ki nun na ngay dunde ak na ngay wute àdduna laa shakka mën na laa yóbbu naari jahannam yal na yàlla jéggal te jubal nu لول دا فا ام لوكو وارال لول لا بغا ليرال اها بول دي سيت با خم لوتاخ الاخره ويسنون لوتاخ نون نيماكو تي جونيت ني نيوم ني راغالون كو بو ديك با مودي سنغال امنا في نياري خيتي نيت نين ني دانيو جانغ جانغ توباب تي يمو ني سي خم خم با واي دنج تا بولي كولتور با اك غامين وا با تاخ ñu fonk aduna lool fonk gutol na gi gutubaab yi fonk ci tubaab yi la jëlee seen valeur ci ñoom la ñuy jàngee lépp lu ñuy gëm te tubaab yi nag ñoom lépp lu jëm ci ilahiyaat lépp lu jëm ci wàllu diine daa woyof ci seen i xol daanaka da caa dee ñoom itam loola wàll leen nga xam ne ñoom daal xëy na gëm nañ yawmal qiyaam waaye nag gëm la gu woyof toy gëm la gu sedd guy goo xam ne gii laa tuxarriku saakinan wala tusakiru mutaxarrikan gëm gu woyof toy goo xam ne du la tax a def la tax a ba am na ci ñun ñi nga xam ne tubaab la ñu jàng moom la ñu nàmp seen culture la ñu am du ñëpp de waaye am na ci ñoo xam ne seenu gëm yomal qiyaam lu leen tax a def leen tax a bàyyi loolu la ko waral mooy dañoo jànge ci tubaab bi nampe ci moom te yemuñu ci xam-xam ba waaye boole ci ngëm-ngëm yi ak culture ba aha ñeneen ñi ci waa Sénégal nag gëm nañu àllaaxira waaye ñoom dañoo gëm ne seen tariqa yi ñu nekk moo leen di yóbbu aljanna wala seen sëriñ moo leen di yóbbu aljanna am na ci ñun waa Sénégal ñoo xam ne yaakaar nañ ne tariqa bi daal moom boo ci xasee ba dugg wala seen diw boo xasee ba ànd moom boo julleeg boo julliwul boo baaxee boo bon na lépp boo laaxira sëñ bi moo lay yóbbu aljanna tariqa bi moo la warlu aljanna yow ak sax sa njaboot mbaa see see mbokk jegeñaale ah ان مجرد الانتقال الى طريقه خصوصيه معينه يضمن لدخول الجنه بل مع اهلي وقرابتي كل الممكن ان يجعلني سفكني بيوج لبي دغا جمنا سرين بلا عند الميت بسرين كم خاص دون تبسرين جيخنا بولا اخرى اجنا نغي دم اك لو مانا ولا طريقه دغا نك دغا طريقه بي بوش بو بنك خاسه با نك بولا اخرى دغا دم اجنا ياك سك نجبو تخفف لولو كاي بو seytaane da koy daal di wu bakkan occasionné wu na ca dina def loolu ay njaaxu man naa tax nga ñàkk julli wala nga julli julli gu doye di xam nga looy wax da naan man dinaa julli waaye julli gu du ma yóbbu aljanna sëñ bee mooy yóbbu aljanna dootoo dootoo fonk julli te itam dootoo bañ a tooñ ndax da xam ne boo tooñee boo àllaaxira tooñ gi la dem dem aljanna tooñ gi la tax a dem safara doo baña a lekk alali jàmbur doo bañ eh, jigéen joo takkul def lu bon lu ne ndax yow loo mën a defit boo laaxira nga dem aljanna aa man ngaa yëkkati saw làmmiñ di xas ay nit di wax lu bon ci ñoom ndax loo mën a defit boo laaxira aljanna ngay dem aa mooy yooyu itam daal di bàyyi bari ci biir Sénégal ay mooy yoo xam ne la ko waral mooy dañoo gëm di suñu àllaaxira pare na sëñ bee nuy yóbbu aljanna wala tariqa moo nuy yóbbu aljanna bu ko defee nag dootoo bàyyi xel àllaaxira ndax yow sa àllaaxira pare na ba pare موي يالله يدا دي بري اها القران القران اك سنه سنن تبي صلى الله عليه وسلم نيغي فيس دلك اي تكس يوني وني ووي دمنو الاخره دي تخاوت تي اموت تي ويرو الاخره دي لا فاي ام موي كين دي سيت طريقه بونه كين دي سيت كوي سيب سيرين داني سيت لو ديفون تي جيف جي لا تا باخ سو باري با 10 ولا يبعجن والوزن يومئذ للحق آي آه، يونا لو تعال القرآن يونا نجمل ونقم يوم القيامة دفرغلول بقتي الطريقة دخلت دب أجنة جوي سبب سنج دخلت دب أجنة آي آه كي يونا تعال القرآن دفرغلول آه قوله تعالى فابرم يلا نينا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يلا نينا yéen nit ñi yéen jullit ñi na ngeen bàyyi xel na ngeen ragal bis boo xam ne bii bakkan du jëriñ moroomu bakkanam dara te itam ak ramme du fa jëriñ dara te itam kenn du fa mën a joxe lenn lu la mën a nekk sa fidaawu baloo dem naari jahannama su fekkee da ngaa jaarul fa nga war a jaar aaya boobu def nuy won ne ci àdduna si sëriñ boo xam ne bii daf lay assuré sa aljanna wala xira loo mën a def musibam yawmal qiyam ak njàqare ya fa nekk moom yow mucc nga ci aay boobu daf nuy won ne loolu du noonu aha boo demee ci beneen saar suñu borom daal nga wax lu wax mu ne yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah allaaxira mooy bis bi nga xam ne ab bakkan moomalul wala mënalul moroomum bakkanam dara mbir yépp ci benn loxo la nekk mooy loxo yàlla ramme am na waaye dafa am ñaari sart kii ramme day am ndigal ci ramme ki muy ramme it day am ndigal ci ramm ko mu ngoog xam nga suñu borom yàlla mi ngi wax ci ayatul kursi yu man da alladi yashfau indahu illa bi idni ana kan mooy def yomm ci kanamu sa borom yàlla yawmal qiyaama di ramme te amul ndigal ah bala ngaa ramme da ngay am ndigal boo am ndigal ci sañ ngaa ramme it du saa gën dañu naan mbooloo maa ku la neex rammal dama ne naan mën ngaa ramm diw ak diw ak diw waaye yow bu fekkee da nga am sëriñ bu baax boo xam ne jaamukatu yàlla la boo xam ne góor góorgóorlu na ci tënku ci yàlla bëgg ba yàlla terale ko allaaxira mu bokk ci ñuy ramme te yal nañu yàlla defal suñuy sëriñ ñun ñëpp ñu bokk ci ñuy waaye nag nga dem sa sëriñ ba di ramme te yàlla joxu ko ndigal mu ramm la yow waaw nooy def yow da ngaa yaakaaroon ne sa sëriñ day ramme nga dem yawmal qiyaam am mbett mbett ma sab sëriñ ram ne wut faf war nay def wala sab sëriñ ma ngay ram ne waaye nag ñañ ko jox ndigal ne leen ram yow bokkoo ca nooy def sëriñ bi nay sa sëriñ nay sa baay nay sa maam nga dem yowmal qiyaam ñu won ko ko mu ne kii de xaw ma ko xam ne moog sama njaboot nooy def loolu dafa mat a bàyyi xel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne buxaari yi moo ko solo mos naa wax faasima doomam bu jigéen ne ko yaa faasimu salini min maali ma chiti mu ne ko faasima sama alal ji boo ci bëggee ñaan ma ci loo bëgg ma may la ko alaxira tat mu ne lu mu alfa dara yonent yàlla muhammad moo ko wax alayhi salatu wasalaam doom ji mu bëgg mu ngi ci buxaari laaj ma ci sama alal loo bëgg ma jox la te nga xam ne alaxira moom mën na lu ma la fa dara jaamul yàlla تجاك لقل يلا اها خم جن صحابه يونتي بي صلى الله عليه وسلم اي جني جني لا جني فك جني اف نيا فك جني صحابه يويو نيت نين تي وون دا ني دم الجنه دا ني لين ليم امنا ني وخ العشره المبشره بالجنه فك ييغا خمنا ني موم خمنا ني الجنه لا ني دم فك ييغا خمنا خمنا ني ني تي صحابه يو الجنه لا ني دم وا آه، ني تي داس نك صحابه wóorunu te ñoom it wóoru leen waaw wóorunu ndax àjjana la ñuy dem te ñoom ñoo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo jihaadandoo ak moom waaye daal ñu tey dem àjjana moom yàllaa ko wax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñuy fukk mu lim tur ya diw ak diw ak diw ak diw ak diw ña ca def ñu ngi ci xidimini ba àllaaxira yàlla seet ak ñoom yàlla na yàlla jéggal aha ولم يكن مجرد صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند عندك يلنك بدعي صلى الله عليه وسلم لولا من المكتكتل سنة فاو نجرب الجنة أها بطخ يلا نجيو جيو جيو الجنة لني دم ندور خمني نيو الجنة نجلس خمرت نيوم دارتني أي صحابة أها وهذا عمرو بن العاص أحد أنك بقتي صحابة يمكني كن يوخ عمرو بن العاص جيقول لي العمر بيه amru ci sahaba yi mag yi la bok te yonent bi sallallahu alayhi wasallam tag nako batay ko ko amru yow de ku bax nga salih nga nee ko amru nit ñi dañu def islam yow da nga def iman tag nako batay amru momu bi mu deme bay waaj génn aduna dafa jojo yu méttee méttee méttee nit ñi diko ko mi ngi dom jang ci wetam abdullah abdullah ibn amru ibnu aas ci saxaaba yu mag yi la bokkoon ci borom xam-xam yu mag yi la bokkoon moom abdullah baay bi nag mooy amru amru jooy walbatiku jublu ci miir bi jooy jooy jooy jooy ndax xam ne tey lay dee nit ki nett la xam ne xam ne day dee amru xam ne ne day dee ana lu muy jooy daa xamul àjjana la jëm xamul sawara waaye moom ci saxaaba yu mag yi la bokk waaw ci saxaaba yu mag yi la bokk waaye xamul àjjana la jëm xamul sawara waaye moom moo jur am am abdullah te abdullah mi ci borom xam-xam yu mag yi la bokk jàngal na diine ba tàyyi jàngal na ci xadis yonte bi lu bare bari sallallahu alayhi wa sallam waaw moo jur doom ju baax ne abdullah ibnu amr waaye taxul mu xam àjjana lay dem wala safara amr daa di jooy jooy jooy jooy doom ji bëgg a dalal xelam abdullah ne ko bàyyi lu tax ngay jooy nii xanaa yonent yàlla muhammad taggu la bataay yi sallallahu alayhi wa sallam xanaa waxul ci yoon nangam ak nangam mu ne ko doom damaa jaar ci ñetti diggante am na ay jamono yoo xam ne Muhammad rek laa bañ alayhi salaatu wasalaam ku ma ko joxoon ma rendi ko booba jamono wóor na ma suma su dee woon damay dem naari jahannam ba yàlla dugal islam ci sam xol benn bis nag ma ñëw ci moom ne ko yaa rasulallah damaa bëgg dugg ci islaam damay jaayante tàllalal sa loxo nee na yonent bi tàllal loxoom ma téye sama loxo yonent bi ne yonent bi ne ko wax am lan la du yaa na ngay jaayante mu ne ko ah damay joxal te ab sart yonente bi ne ko sart bi sartu lan la mu ne ko xanaa des may jéggal xam na li mu def xam na daa bañoon yonente bi sallallahu alayhi wa may jéggal yonente bi ne ko xanaa xamoo ne boo duggee ci islam lépp loo defoon lu ko jiitu jéggal nañ la ko xanaa xamoo ne boo gàddaayee màkk ñëw Madina lépp loo defoon ci lu dul jéggal nañ la ko xanaa xamoo ne boo ajee màkk loo defoon jéggal nañ la ko nee na ma bëgg yonente bi lool sallallahu alayhi wa sallam ba mu gënal ma képp ku dul moom nee na ma bëgg ko màggal ko ba mënuma koo xool nee na man moos ku ma ne woon yonente la Muhammad nu mu mel alayhi salaatu wasalaam du ma la ko mën a wax ndax lan ndax bëgg gu ko bëgg ak warmaal gu ma ko war warmaal ak màggal gu ko màggal te loolu xale réew mi xale réew ñi nga xam ne dañuy jéem a wàcce daraja yonente bi ak di ko suufeel nañ dégg waxee amru jooji amru nee na ku ma laajoon yonente la Muhammad nu mu mel alayhi salaatu wasalaam du ma ko xam ndax mosuma koo xool ba sama bët doyal ndax màggal ko ak wormaal ko bëgg ko nee jamono su ma dee xam naa ne àjjana laay dem wala boog naa ko yaakaar dinaa ko yaakaar waaye nag gannaaw loolu gannaaw bu fi yonent bu jógee damaa jaar ci ay jaar jaar jaar jaar yooyee nag laa xewul bu ma demee fa saa lu ma fay fekk da ko def ab saxaabal nee na jaar jaar yi mu jaar gannaaw sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam moom la xamul bu demee ci yàlla lu mu fay fekk mbokki jullit yi kooku ab saxaaba la saxaaba yi ñoom nii la ñu ragale woon yowm alqiyam mag mu tol ne amr ibnul aas dem bay wuy ji boromam ak li mu jihaad fi sabilillah ak lim sonnal islam waaye rek buy bëgg a faatu mu joojoo yu metti nga xamul alaxira lu mu fay fekk xamul àddina xamul safara dafa ragal yowm alqiyam saxaaba yi dañoo ragaloon yowm alqiyam aha اليوم الاخر وعدم تيقنهم بما يحدث فيه وهم بلا شك خير هذه الامه بفكنا صحابه مكي هم الاجنبي ني لا نرجل وان يوم القيامه فنيوم نيو اندون سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صحابه يوي نغا خامني امول بن ولي ولا بن برم مرتبه سي غنداو سي خيتلي كولين مانا جوت ماغا جيجلين مرتبه موك لو ولي يو بري درجه لو ري مقام دو جوت موك بن صحابه منوكو te saxaaba yi ñii la ñu ragale woon yowmal qiyaam xamuñ ci ñoom kuy dem aljana kuy dem safara ñoom ñii saxaaba yi bu fekkee nii la ñu ragale woon yowmal qiyaam waaw kon ñun ñëw seen gannaaw nag nun war a def dañ koo war a ñeme dan koo ñeme ci kaw erreur dan koo ñeme ci kaw danoo gëm bi yowmal qiyaam aw gëmin wu wérut danoo gëm ne yowmal qiyaam mi ngi ñëw waaye bu ñëwee sëñ ba moo ni yóbbu aljanna bu ñëwee tariqa bi moom ku ci xas bokk jeex na da ngay dem aljanna kon sahaba yi bi ñu ragale di yowmal qiyaam xam ngeen ne moos Usmaan ibn Mazuun bi mu génne aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg fa fasasa jigen diga ji mo la nekkoon ci kërëm daal di ko ne moom day mag aljanna yonent bi da ko ne xaat ana ko la ko wax nun dañuy am ku génn aduna ci nun ku saar ci nun rek ñu daal dama nga àjjana jiw ma ci aljanna ja te sahaba boobu bi yonent Yàlla Muhammad ñëwee sallallahu alayhi wa sallam soxna sa ni ko kii de moom raw na ma nga aljanna yonent bi da ko ne xaat ana ku la ne ma nga aljanna fii mu nekk nii nga xam ne dee na day wér génn àdduna xam na ci lu mu ne waaye ñun de xamuñu ci lu ma ne man mii di xaw ma ci lu ma ne xaw ma lu may fekk ëllëg mu ngoog kon boog munoo wax ne ma nga aljanna moom moo ko xam mu kon boog mbokki jiw yi saxaaba yi ñoom nii la ñu ragale woon yawmal qiyaam nii la ñu doon bàyyee xel ëllëg ba tax leen jub tax ñi wuñoo lekk lu xaraam ñeme wuñu jëw dañoo ragal a fen dañoo ragal naan sàngara dañoo ragal a wut ala wutri wu lewul dañoo ragal a sànq àq jabar sànk àq doom dañ ko ragal dañoo ragal a tooñ dëkkandoo ndax dañuy bañ yemal qiyaamati ñu am fa problème nun nag ginnaaw danoo wax ne daal nun bu àllaaxira àjjana rek àjjana rek loolu moom la andil musiba mu rëy bi mu nekk ah. waaye dama xamul mbokk jullit yi nan la ñu fàtteel yàlla di wax ci alquran yàlla nee na yawma nabtisu lbatsata alkubra inna muntaqimun yàlla nee na bis bu meree bis bu may mer sama mer mu rëy ma dinaa fayu loolu la yàlla wax yàlla bu yàlla fayu ci ñun yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nee na dina mer te su meree dina fayu mbokki jullit yi li ngeen xam ci Sénégal ci ay bakkaar bu nu ko yàlla baalul xanaa fayu ci sunu kaw fu nu jëm xaw ma nan la ñu ñemee wax yàlla jooji aha mbokki jullit yi damaa xamul ana fan la ñu jaar ba suñu xel dal ci yowmal qiyaam retiix nu jàpp ne amul solo ci bis bu ragloo ragloo ba nga xam ne bu ñëwee yonent yu mag yi sax kenn ku nekk danaa sama bopp laatal te day tiit xam ngeen ne ñëw na ci téere yi ne bu àllaaxira suñu borom yàlla bu dajalee nit ñëpp ba ñëpp teew ci benn barab day wàcce jant bi ba mu jege bopp yi ba mujj nit ñi dañuy ñàkk tey xet ba suuf si tooy ba am ay yuur yuy xet di bax su boobaa ñëppay nekk ci njàqare dana am am mbooloo mu ànd dem ci aadama ne ko danoo bëggoon nga tinul suñu borom yàlla mu àtte nit ñi kuy dem aljana dem aljana kuy dem sawara it metti na waaye nga xam foo jëm ndax taxawaay bi yàgg na te metti na te kenn ci ñu xamul fu mu jëm aadama day wax di leen man ñi ñemewu maa ngaan ndax tey ji yàlla daa mer mer moo xam ne musu koo mer te du ko merati mukk te man damaa tooñoon benn yoon dem leen ngeen seeti ibrahim ibrahim xaritu bi yàlla mbooloo moo jóge fa dem ci ibrahima alayhi salaam ne ko yow xaritu saa borom yàlla nga te yëf yi metti na naaj wi tàng na كان كنا كن تيتنا خمون ألا فنجم أجرام سفرة دونا بقول كان يام سون برام يلا مو أتنيت ني كويدم الجنة دم الجنة كويدم سوارة يت متنا ويا نجح فنجم إبراهيم ده وقت تيجي يلا دام نر نر مو خمنة مسكو مر مك مك مك تمن دما آه مس وخلو أموت مو تقدم نفس كمان مكي جديد مي يوم ما يدقلو نه مس نا وخلو أموت نعتير دكوا وقت بنا بي doo ab yonent jege woo ko doo xaritub yàlla jege woo ko kii nag moom yonent yàlla ibrahima mooy xalilu rahman mooy xaritu yàlla ci yonent yu mag yi la bokk am na ñaari doomi yonent am sëti yonent waaye teewul bu yowmal qiyaamate day tiit xelam du dal day ragal ndax yàlla daa mer nun nag yowmal qiyaam daal nu woyofal ko toy dafa ne bu ñu demee rek mbir mi jeex na la daa dem aljanna loolu ana fu munu jóge aha mbokki ñu di nii suñu xel dale retiix ci yowmal qiyaam nu jàpp na daal àllaaxira moom jeex na tiijaan du dem safara murid du dem safara ibaadu rahmaan du dem safara falaax du dem safara suñu xel dal retiix man daf may fàttali li yàlla di nekk li ci alquran xam ngeen yàlla lu mu wax nee na yahudi yeeg nasaraan yi dañoo wax ne ñoom àllaaxira bu al mën naa am sax ant ñoom ñu dem safara waaye du fa yàgg yahudi ñoo ko wax yahudi nee nañu لن تمسنا النار الا اياما معدوده بعد الاخر سفر نيمي لك تي نون يهودي اي فان يو نيو لن لك مو سان بروم يالا تونتو ني واخ لين با خم داخ مان يالا ما لين ديك لولو يالا داي لو مودي دا نكو داف داخ مان يالا ما لين ديك ني بو الاخره دو نين ياغ نار جهنم ام دا نين دي واخ لين نيه رك دي واخال يالا مبخوت يين وا سنغال نون وا سنغال نون ني جاب ني بو dañuy daal dem aljana rek sa borom yàlla la mu waxoon yahudiya maa ngi leen koy wax di ko wax sama bopp ndax yàlla moo lu defal assurance ci alquran mbaa ci fenn ne bu àllaaxira day dem aljanna am danay wax ci yàlla lu mu xamul feneen tam suñu borom yàlla ma nga fay nekk li wax yahudiya ak nasaraan yi wa qaalu lan yadxula aljannata illa man kaana huudan aw nasara yàlla nee na yahudiya ak nasaraan dañoo wax ne aljanna ab yahud rek ka fay dem wala ab nasaraan suñu borom yàlla nee na tilka amaniyuhum seen bëgg-bëgg lañu wax mu ngoog qul haatu burhanakum yow Muhammad waxal ma leen ne leen nañu andi ay preuve yu wér yuy wane ne yahud ak nasaraan da kay dem aljanna nun tam loolu la ñuy wax di nun daal danoo wax ne daal kenn ku nekk ci daal mbooloo ma mu ne tariqa ba mu ne wala mbooloo ma mu ne ñoom ñooy waa aljanna boo laaxiraa ñoom ñooy dem aljanna mbaa ñoo fay jiitu mbaa ku ñu sëywul doo dem aljanna yahudi day waxon nañ ko ak nasrani yi borom yàlla lu mu leen tontu da leen ne seen bëgg-bëgg rek ngeen wax waaye nun tam ni nu yamul qiyamati qiyaamati fal ko toy yaakaar ne bu àllaaxira sëñ benn yi jiital yóbbu aljanna wala tariqa bo ci bokk nangam ki nangam wala mbolo mi loolu suñu begg bëgg-bëgg dong la ni wax mbokk jullit yi nañ leen tuub aha Yeah. Uh -huh. yéen ñi nga xam ne da ngeen a am assurance seen xel dal retiix ci yowmal qiyaam ngeen daal di am ak dogu ci ne boo laaxira àjjana ngeen di dem ba tax ngeen woyofal julli woyofal sunna sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam woyofal alquran jéemu leen a xam li muy santaane te def ko jéemu leen a xam li muy tere te bàyyi ko ndax jàpp ngeen jàpp ne seen àllaaxira pare na man day jàqal naa sama bopp te jàqal naa leen ndaxte kat amul ci ñun kenn ku am benn preuve bu tege ci kaw objectivité buy wane na man mii àjjana laa jëm mbaa diw na lay jëm du sëriñ ba du taalibe ba du borom alal ji du faqir ga du góor ga du jigéen ji kon bokk nañ leen tuub su nuy bëgg-bëgg dong la nuy wax ci yowmal qiyam suñuy bëgg-bëgg dong la ñuy wax ci yowmal qiyam kon bokk li ñu war a def mooy tuub te bañ a nax suñu bopp te xam ne yowmal qiyam mi ngi ñëw ku ko gëm dina ñëw ku ko gëmul di lu ñëw kon boog nañ leen ko gëm gëmin wi wér te mooy nu xam ne dana war a moytu li yàlla tere te góorgóorlu ci li mu santaane ndax nu mën a am jàmmi adduna ak jàmmi àllaaxira yàlla na ko yàlla may waaye lii nu nekk ci cànkute lii nu nekk ci sori alquran ak sunna sax ci ba tax yàlla du ma wax ne dañoo mere moo tax problème yu bari waaye kon dinaa ne daal problème yu bari yi tombe naag sunu bakkaar yu bari yi ba noppi yàlla wax ci alquran li mu wax ne man aadada an zikri képp ku dummooyu sama njub gi ba wàcce fa inna lahu maishatan dankan sa dund ci àdduna dana xat wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama te ba alaxira boo dekkee da ngay gumba dem naari jahannam mbokki julit yi bu nu nax sunu bopp nan tuub nan jàngiwaat alquran jàngi nu xam lu mu ëmb te jëfe ndigal ya te bàyyi tere ya te topp sayiduna muhammad alayhi salatu wasalaam lu ci waay nekk ak tiijaan la ak murid la ak xaadir la ak ibaadu rahmaan la falaax la lu ci waay nekk na ko peese ci palaasu alquran ak sunna ba mu wóor ba mu wóor ko ne mu ngi ci yoonu yàlla bëgg ndax boo laaxira ñu maanaam bokk dem aljanna sama borom yàlla moom ne ne boo laaxira day peese wal wazn yawma idin al xaq mbokki jullit yi lii mooy li nga xam ne moom laa bëggoon a waxtaane ak yéen yéen waa Sénégal gépp yéen waa gàmmu gi yéen waa dëkk bi kenn ku nekk bu delloo na seetaat la muy def ak la muy wax benn par benn dendale ko ak alquran lu ci dëppoo ak moom alhamdulilah lu ci dëppoo ak moom mu wëlbati ko fexe ba mu dëppoo ak moom door di yaakaar àllaaxira ju jag door a mën a yaakaar adduna ju jag yal nañu yàlla jéggal yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla baal yal nañu yàlla keetal boppam ci yoon mu gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu